mooy ku ko yëg maajoor yëgoo ni ki la teral moo la teral waaye yëgoo ni ki la toroxal la toxal maajoor ku teral moo la teral ku la toroxal moo la toxal ba ma ñëw duñu mës a toxal utal leen ma appartement Grand Yoff ma ñëw billahi lazi la ilaha man bu ma may xaalis mais yëg ma te lii dafay doomu aadama yi. cheikh bu ma may dërëm. billahi wallahi tallahi nañ ma wutal appartement ma ñëw Grand ndax damay luy rek parcelle dama luy nañ ma wutal ma ñëw fii kii dafay doomu aadama yi kii na ko Grand Yoff jàppale kii dafa baax kii dafa baax kii ku ko koy bëgg kii na ngay yëg ni ku ko ku ko bañ bañ nga yàlla bañ nga yem ci yàlla Muhammad billaahi xolam benn xol la moom la ko yàlla defal bu ñeex démb ci heure bi ñu nag moom Grand Yoff tey sama xarit bii ni mu ngay boomi nekk ak moom wóoma ma ne ko dama ni woon damay noppalu ba gàmm gi du ma dem fenn waaye dinaa ñëw am ah, ma jóg yal na la yàlla teral yal na la yàlla sàmm ku la xaar yal na xaddi ku la jonkone yal na diwtu ba ne wàll man maa la bëgg ana ñu sopp Alaaji am amuñu sopp da loolu ma wax mu wayal ko rek bu fekkee ne sopp ko ba teg micro yi ah, ana treize ana ndey bii sopp leen Alaaji ma way leen wala ma teg micro yi irhal li taybata la dawma siwaha فعصاك أن تعضى برؤية طه والنيل والرجاء دار الحبيب قلوبنا تواء دار الحبيب قلوبنا تواء هي طيبة تابت لتيب أفوها ومدينة رب السماء سماها طيبة وأنا يمك نبخ منزلا متفابها فخر الأمور للمصطفى بربها قلوبنا تهواها أرعنا في العنا وكذا المنى أهل الحبيب قلوبنا تهواها فيها تأمل بل استدمى كما كنت تبع ما تنقل فيه bëgg ngeen jox ko ma jox ko. wa kallamuna daarul amin qulubuna tawaa Allah هذا الجمال ورياض المعال بك بكال لك بكال الله bu fekkee jamono wasaadu man jàppal te may bu nekk wa im li sàkkiri te hindu lala ba ma jub yaa mari njëriñ la yaa dal jamaali wa yaa dal jamaali wa yaa dal maali wa yaa dal maali تكن عندك لما جب فكي جامنا ولا تسلم جفلت معي بدنير ولا تعبد بسوء التهاب يعيشون خارج فأنت فأنت ومن أبوها ومن أبوها ومنك الأبطال فهب لسؤالي وأبقى صلاتي التي صفي القشاة وصحب الرعالي يا فاصطوباك حقا خصك الله تفضلا واقتراما من مغايا عمضى المناد لنا في كل يا من له إن مولانا العلي جرى أنا طالب الشيخ يا سيدي عبدكم قد خلص ساعتكم شيخ يد الغرام منكم واتموا أيه الحمد لله هذا شيخ رباه كما خير الوجود

ana sopp yi sëñ Babacar jug leen nu màggal guddi naan ana ñuy bëgg sëñ Babacar jug leen nu màggal guddi naan at yoo yoo yoo naalal man da damay laaj ana taalibe sa fi damaa bëgg ne ñëpp sant sëñ Bara Niass. du ko jóg daal boo waxee jërëjëf sëñ Maka yàlla nga ci wax dëgg. sant lan may jërëjëf sëñ Bara ay waay ko sant ren di nga sant

الإمام يوما إلى الهنا يكون إماما وفرارا ومرا ومرا وروارا محمد منصور الحاج منصور وإباي سيدي منصور محمد محمد محمد محمد محمد نكتيجا نكتيجا نكتيجا ci barkeb si fàddilu mi ana ngi yaakaar Serigne Fallou koy loxo waay buuru yàlla dolli nu ay maqaam kenn la ak mujizaatu ma ajada kulla mara xam naa dix minutes rek dix minutes rek ñu def ñaar ci daraje Idula laka mujizaatu ma ajada kulla mara maa ngi nuyu monsieur le maire mu nuyu ma adjoint maire yi fi nekk yëpp rek ci dara ji. moo leen conseil municipal yi nga xam ne ñoo ëmb dajale def lu mel nii ñaan yàlla yàlla yokk seeni tara. samaam Cheikhul Hadji Malick dana ala azimu laylal wiladati xisbatan ne sama Maodo def na kulla wara. sëriñ سيدنا خيرنا أعجز كل ما سيدنا ولينا أعجز كل الورى سيحصل لو خمسي الحاج بام جوب مسلم دي doy alaaji maa ngi leer jarul ngay dem mën ngaa teg sa fii sa toog. jaamu yàlla màggal li nga xam ne moom rek moo jar a màggal wax ma ma aqdama allahu maaduman wa awjada majduman dawaman alaaji maa ngi leen ne guddi gii ma woote woote mu ko ngeen lu dul màggal ki nga xam ne moom la yàlla màggal bàyyi fàkkoog Zeynabu roxu yi waaye maa ngi ñaan ko toog ci tànk bi te bëgg Sayyidina Muhammad ñu yëkkati ñaari loxoom ñu màggal Rasulullah sopp taxe bëgg taxe a na aljanna seen kër balaa yi nga xam ne mooy vingt plan balaa moom la Rasulullah gënoon a bëgg aljanna yéen ñi kuréel la ñu soxla mooy vraiment yàlla nee na damaa bëgg ñi nga xam ne dañoo daje te benn motif tëj benn kuréel àndandoo di dooleel yàlla inna allaha yuhibbu allazina yuqaatiluuna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyaanun marsuus maa ngi leen ko amewul loxo amewul loxo amewul loxo fottasul ba mairie bi di liir fottasul ba garaayub di liir ñu màggal daay bu màggal rasulullah yàlla la bëgg a rasulullah yàlla da nga gis moom lu waay mu sa bàyyi Seexul Xaaji Abdul Aziz Si Maalik wax ci sëñ la maam maam maam maam alaaji Malick nee na maam alaaji Malick nee na nañu màggal guddik yeneen ci bi ngir sàkku ci jaamu yàlla yaa aduuni yaa aduuni yow ak sama amuñu bind cër ci man. fii mu ànd ndax ni waa may naa yi. su soppi yàlla moo am. sama xol bi borom mbay jàmbur rafet ba borom 48 mois 12 jours sa rafet nee na ñi ngeen may accusé ñun indi amuñu cër ci man. ndax bii. naka bëgg ñu mel ni ñoom. li mu si indi araam. ñu mel ni ñu indi araam ci man. waay waay fii xel leen ma. sama mbir man daa baax ne kullu la ko. ci dëgg-dëgg naan naan la ma. sama borom yàlla la nandal jaarale ko ci fay dëgg nga xam ne moom mu tulli wali yu alaaji abdi mi la bëgg yéen ci bi yéen ci bi mooy sama farat mooy sama naafila mooy sama naanuwaay muy sama bibit mooy sama kaddeg mooy sama diggu yàlla mooy sama samsam nabi sama ati nabi sama makkaama nabi sama musa nabi sama salaam mu yomb ci eh, na nga sàkkoo tagg ki jara tagg mu rasulullah fii yàlla ngi lay may kattan ak wér alaaji abdulaay la bëgg ak tagg sayyidina Muhammad bokk na ci ndax njiit yi gën a màgg nee na jégal ni lii ngeen ni Cheikhul Hadji Malick am nañ ko amee ci tagg yi incha allah Muhammad li ngeen di seet Seydi Aboubacar si am borom bone kaara ba fedd la borom lii wut dëgër yëpp waaye bu soo xamee ci nga nga xam ne mooy tàgg Seydina waxal li xaadim rasul bàyyi ba sa baaraam ana muridi ana muridi ku sopp sëriñ Tuubaa da def nii alaaji abdoulin li si Amadou Bamba xaadim rasul am bàyyi ba sa baaraam mi doon seet góor ga sant barke sant ba bàyyi alaaji Fadul kii gii lu jumaa ji taal lamp yi miir armeer yi ba max ñeenti gadoroo yi bu Tuubaa Mamadou Fall maa ngi sëriñ Abdou Karim ba yëpp jéggal mi li sëriñ Tuubaa am na ko am ci tagg Sayyidina Muhammad Cheikhul Aji Abdou ni yi gën ni li bàyyi ku bañes Abdou am lu jot Adama ay sa irimaani si leen ba Ali Mokhtar Tan Cheikh Omarul Fuuti am mi ngi ko amee ci mi ko amee ci tagg Rasulullah mooy na bu ëpp dara jàll a tudd ay dara jàll nga yéen Cheikh Ahmadou. Ahmadou Ummati. nga xam ne mooy sama kër tuuraay. Mahabbatu. dëkk sa sunu laay. ci xol. dafa mel ni nga fekk miir bu tooy nga rëbb ca damay ne El Hadj Abdoulaye ne bëgg yéen Cheikh nga xam ne noonu lay. Cheikh Adama Alioune nee na ku soppi la mu am. sallallahu alayhi wa sallam. moo daal yow Rasulullaah mi bal wa. yaa sayyidal wara. yow ma sa yéen a ci. waxaay ak mi si rabi yaa yi dellu ak. yow yaa mottali ma sa yéen a ci yow Rasulullaah. dafa gën a sama baay yi ci sa buntu ya sayyid al awra sama yiniti jaay ku mo dara jaara ñu yaak sama ada bil ëllëg ëllëg yow nga xem bu yàlla ko pay cant bi ku pay weer wi mabal asamaati ray ni meer boo yaakaar mu daw kenn képp rek la ñu yaakaar mooy bàyyi fa toog seen mu koy mu tukki mi dina ci mun a lor borom pavillon bu jekk ba fa xam ne boo fa demee wër sama yëpp yooyu xool bu 19 dara ba 21 dara bu 44 dara rasulullahi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala mu dégg wala laakira xayrun laka min al-ula mu dégg wa wajadaka daalan fahada wa dégg wa wajadaka aa'ilan fa'aghnaa mu dégg fa amal yatiima falaa taqhar mu dégg wa amal saa'ila falaa tanhar mu dégg wa amma bi ni'mati rabbika fahadith xanaa mairie bi amul ko sopp rasulullahi mu tudd daal soo xool la ñu màggal sayyidina Muhammad mi nga xam ne mooy borom loolu mu rasulullahi Dia mooy orienté jàng di di. mu sëñ bi nga xam ne ay yoon mu sëñ bi. yow li ñu bind sëñ bi nga am ay borom yooyu di di suuf la. loolu mun na moo ne nii. lii sëñ bi xëy na aussi. mooy sama bàkkaarkat yi. wala sëñ bi am na ay at mooy. boo dem ku yàlla yónni nga am tànk. kan yàlla yi. wala ci nekk kay. rasulullah wala yàlla yónni. wala ci nekk kay. عند أولي الأروم ومقام المعبود وسمى عبد الكبرى بيدي يوم موعود إمام رسول الله عزمي ابتخاري مكي مدني أسرها آدمي فقه نساري بقته حجازي رسول صلى الله عليه وسلم bokk bokk yàlla yàlla bokk loo yéene ci waaye lu ñu de xalifa bi de waaye lu ñu si seexal wax yonent bi bàyyi li mu wax yonent bi réer yonent ci la yàlla bi bàyyi ne ci la yàlla bind ci bi bàyyi ne ci la yàlla bind jinne ci leer yi ci bi ci la yàlla bind àjjana ci la yàlla bind safara ci la yàlla defaree mboolu biir jàmmi ku dugg àjjana ak loo mën a am ci kaw suuf yàlla la ko ci barke leeru Sayyidina Muhammad Allah la ilaha illallah Allah Allah la Babacar Si fono sakkam ci Babacar ku fi gën a bëgg Sëriñ Babacar Si fono sakkam ci Babacar may ko ci sakkam hudan dana may ko ci sakkam sëriñ Gurdu fii ko ci sakkam sëriñ Gurdu fii ko ci sakkam sëriñ Gurdu fii Ana murid, ana murid, ila parce que bu ñuy ñaanu folklore benn rek ëpp dañu war a def ñaaba li ñuy def. oustaz ñaan. ñu jàng Fatiha salaat al Fatiha. bu seen dayoo. moo tax nit da ngay am tarbiya. soo amee tarbiya da ngay yaru am ay teggin teggin mooy nit. mais nekkul noo toll rek wane ko mën a neexee ay teggin muy nit te ay teggin bu nga ko tarbiyaaw doo ko am ñoom bu leen neexoon tey gerte dem mais gerte ñu dem bu leen neexoon ñu ne continuer mais waxuñu ko donc man mënu ma leen a ma leen a fañ ku nekk seen daa war a gudd ñii du leen gërëm parce que daanaka ñoom seen wàll lañ def. mais yéen ñi nga xamante ne nga war a jël kàddu jël leen kàddu ngeen toog ba heure bi jël kàddu sant na laay def loolu laa ci bëggoon sant jërë ngeen jëf ñëpp waroon dem pour ci da ngeen bàyyi lépp jërë ngeen monsieur le maire yow amuñu sa fay léegi mu ñëwee laa koy dee Babacar bu mii suñ Babacar bi mu ñëwee laa koy wax dañ daje jamono yële benn burdu jamono tam si bi ah kon naa bàyyi kon naa bàyyi di gërëm waa mairie bi saas nga baal ma jëwri di sant waa ci mag ak benn grand bu sax waaye du ma tudd turam ndax gis naa ko ay à grand bu boobu maa maa stop maa mag mais ay xale rek ñu organisé nii bi mu di xewlee dañoo def fii safar safar bu rëy soxna Fatou Mbacke moo ko présidé wu doomu sëñ Fàmmu mu ñëw gàmmu jox tijaan yi def bóot ñëpp koy bokk nag doo xam ne mënut a tijaan koy bokk sol li ñuy sol boo ko defalul lépp ay xale lañ loolu day wane ne malgré ñu ngi liggéey àdduna dañuy ñu ngi bàyyi xel suñu loolu rafet na kontaan nañ réussir na yàlla yàlla barkeel na jërëjëf. waaw balaa ñuy ñaan.